gan gi Déthié Faye coordonnateur pôle non aligné ñu ngi lay euh, nuyu sëñ bi Faye di la dalal ci euh, matinal bi am ci mbégte mu rëy. Fatou Diam Ngom maa ngi leen di fay di am mbégte bu baax di leen sant leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. baatu fayeen bi da daa gën a leer xanaa da ngaa nekk ci diggante bi. Ah, non gën a. da ngaa mos rek <laughs> <laughs> jërëjëf dama dama entraîné wu tuuti. moom kay xam naa ne am na foo jaar <laughs> aywa ñu tàmbali waxtaan wi bëgg a xam fu ngeen féete ci coowal sena bi am na ñu ne palin gi ñeel membre yu bees yi jaarut yoon ñeneen ñe fi ñu leen falee sax euh, jaarul yoon ba tax ku mel ni Ndiaga Sylla expert électoral ne dafay dem yóbbu yëf yi kalaame ko ca kanam yoon woo ci nag képp ku yëngu ci wàll politique ak euh, bépp citoyen sénégalais bu gëm ne itam yëf yi dañ cee salfaañe euh, loi électorale yéen fu ngeen ci féete yéen. yéen non alignés yi. waaw xam nga depuis deux mille dix neuf euh, ñu ngi doon wax ne membres yi nga xam ne seen mandat jeex na ci Sénat bu ñu bëggee préserver seen autonomie autonomie Sénat il fallait que ñu remplacer leen. Euh, boobu ak léegi gouvernement bi da doon tànqamlu euh, nit ñi itam ñaawoon ci njort nag. waaye bi nga xamee ne mbir yi xew na ci fan yi ba Sénat jóg am taxawaay bu mu taxaw euh, jaaxle bi yokku na bi nga xamee ne ñoom ñépp la remplacer te mu am ci ñoom au moins ñoo xam ne seen mandat jeexagul te li loi bi wax mooy koo ci xam ne sa mandat jeexul kenn mënu laa remplacer mm-hmm. loola moo indi ak jaaxle mu mel ni kon Euh, xeetu fayonte la bi nga xamee ne Sénat jóg na taxaw wax ne atte bi nga xam ne moom la tribunalu Ziguinchor atte nañ ko doxal te xëy na loolu méngoowul ak gis-gisu ministre de l'intérieur ministre chargé des élections hmm. loolu moom moo indi euh, vraiment ak jaaxle ndax dañoo jëm ci jongante yoo xam ne kóolute bu ci amul pour que jongante yooyu mën a tegu ci yoon dana jafe lu aju ci wooteb Ndiaga Sylla bi ndax fas yéene ngeen dem yokk leen doole ci li ñu nar a kalaame ji décret bi fal waa yu bees yi ci kanam yoon. waaw euh, Ndiaga Sylla li mu def dañ koy dañ koy encouragé ndax xam nga am réew boo ci nekkee bu fekkee ne dafa am loo xam ne danga nga koo gis te jàpp ne lii jaaduwut boo koy xeex xeex ko ci yoon loolu moom mooy état de droit loolu ñëpp dañ ko war a rafet lu doole. ndax lu moo gën nga ne lii ànduma ci woote manifestation nit ñi indi ay yëngu-yëngal yoo xam ne fitna dina ci juddoo yuy lor ay nit kon loolu nga xam ne euh, moom njaga euh, jël na ko comme initiative euh, lu rafet la ndax démocratie noonu lay doxe bu demee ci yoon yoon dana wax ne waaw décret bi aw na yoon wala awul yoon su fekkee ne décret bi awul yoon ñu teggi ko ci jàmm ak salaam loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu rafetlu ci taxawaayam te di ko ci encourage encouragé ci ngeen di yem wala da ngeen di dem yokk ko doole ndax moom dafa woote pour ñu ñëw jàppale ko ci. mbooloo mooy doole tey hmm. tey tey c'est-à-dire euh, initiative yi nga xam ne nit ñi jël nañ ko pour mbir moomu bari na. Hmm. donc. Euh, même combat lay doon boo xam ne ñëpp dañuy taxaw pour que effectivement décret bi nga xam ne moom moo taxawal Sénat bu bees bi décret boobu dëppoo ak yoon loolu nag dafa laaj waxtaan suñu biir. Hmm. ba xool lu ci nekk yan acte lañ ci war a poser bala ñuy wax ne lii ak lii la ñuy def. d'accord yéen noonu aligné da ngeen taxaw taxawaayu arbitre mun nañ ko waxee noonu ndax yéen a ngi ci diggante opposition bi ak pouvoir bi féetewu leen ci fenn te fi ne coow li bari na lool ci processus électoral bi bu weesoo mbiram Sénat bi am na yeneen ak yeneen yuñ ciy yëkkati euh, di ay ñaxtu yuy jóge souvent ci opposition bi wala ci société civile bi yéen lan moo ci seen euh, taxawaay dëgg da ngeen jàpp ne nguur gi moo nekk fi mu ne di salfaañe lépp luy euh, loi ak règlement wala opposition bi ak société civile bi ñoo xaw a ëppal ci ñaxtu yeeg teg euh, li ñuy yuuxoo ko jéebaane. xam nga pôle des non-alignés dafay kuréel boo xam ne dañ koy taxawal muy joxe xalaatam waxtu dialogue politique amee tey li nga xam ne fu ñu toll moom la ñuy wax mooy su jafe-jafe amee dara waralu ko lu mooy déggoo yi nga xam ne moom la ñu déggoo woon ci dialogue politique bi def ci am yoo xam ne dañ koo doxalut buñ ko doxaloon jafe-jafe yi du am ndax li ñu njëkk a wax te mu am solo moo di ne fitna ak décris ak crispation bii nga xam ne moom la moo am ci espace politique bi gouvernement bi war naa jël ay matuwaay pour ko loolu deñ te acte yi gouvernement bi di posé léeg-léeg dafay doon loo xam ne day tax kóolute bi war a am diggante acteur politique yi di gën a wàññeeku di gën a teggeeku loolu moo tax ñu jàpp ne gouvernement bi war naa def kem kàttanam pour que organisation élection yi tegu ci charte yoo xam ne nit ñi dañ cee déggoo lépp li nga xam ne mooy ay point de consensus mu respecté ko waaye su fekkee ne itam dañuy dem ba léeg-léeg ñu indi ay atte wala ay loi te moom mu mën koo teggi loolu mooy indi jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund actuellement. Hmm. loolu nag Paul Denona la ñi waxtu wu ne loolu moo mës a nekk position depuis 2016 fii ñu tollu loolu lu ñuy wax di ko fàttali du ñu mës bàyyi di ko fàttali. mais du ñu leen di dégg lu bari lu coow li bari bari lu tax loolu. non cest à tey par exemple amul yow xam nga am est-ce am mën nga maa génnee benn communiqué. Hmm. bu ñu wax ne kii c'est le pole de la majorité wala kii c'est le pôle de l'opposition non non non non li ñi nga xam ne ñooy exprimer wu. dañuy exprimer en tant qu'acteur politique mën nañu nag bokk ci majorité mën nañu bokk ci opposition mais en tant que pôle nga xam ne pôle yi pour les concertations politiques hmm. euh, doo génne communiqué boo xam ne da nga naan kii pole de de l'opposition moom moo ko def noonu ñuy prononcé wu nag euh, te nekk ay parti yu nekk ci opposition wala ci majorité wala ci non aligné ñun itam noonu la ñuy prononcé wu ci actualité bi hmm. ndax mën nga ñoo gën a gindi ci ñan ñooy non aligné yi xam nga buñ ne bennoo xam nañ ñan ñoo ca bokk buñ ne yew it xam nañ ñan la mais non aligné yi ñan lañ. c'est-à-dire euh, euh, Yewwi Yewwi du pôle. Hmm. coalition la Yewwi coalition la waaw. donc il faut qu'on hmm. Yewwi du pôle du coalition la. dëgg la maa ko waxee noonu rek ngir wax euh, kuréel. non attends Benno coalition la. Hmm. ko pôle yi il faut que nit ñu comprendre que pôle yi dañ koy constituer autour du dialogue politique. Hmm, kon du ñuy ànd saa su ne. tey par exemple bu ñu demee ci élection ay coalition dafay am. Hmm. coalition bu amee ña nekk par exemple ña doon réclamer pôle de la majorité dina am ñoo xam ne duñu gis seen bopp foofu dem ci beneen ci beneen coalition wala ñu taxaw seen coalition bopp. Hmm. noonu la coalition yi taxawe te ñooñu ñooy prononcé wu waaye du pôle politique yi nga dégg benn pôle di prononcé wu officiellement euh, par un communiqué wala une déclaration sur les événements actuels. Mmh. d'accord kon noon des non-alignés nekkul ñuy ànd saa su nekk euh, defab say xëy na di xeex ay xeex ci wàllu politique waaye ñuy dajale bu dialogue amee noonu lañ ko war a. xamee bu dialogue amee par exemple fii ñu jëm ci élection yi. Hmm. ce n'est pas. forcer que tous les partis yi nga xam ne dinañoo nekk ci pôle des non alignés ñu def benn say bokk ci benn coalition bi hmm. noonu la itam nga gisee par exemple boo jëlee ñi nga tudd léegi euh, composer plusieurs coalitions politiques hmm. n'est-ce pas hmm. donc ñooñu ay ay ay coalition yu bëree bëri la Euh, noonu la euh, mbir mi di nekk itam au niveau du pôle des non alignés. d'accord ñu wax ci mbiram Ousmane Sonko ay awkaam génn fan yële yëkkati ay kàddu yu xëy na euh, tiital ñu bari ndax nee nañ mu ngi ci coma bu xóot gannaaw bi wérgu yaramam sutante ndax grève de la faim bi mu nekk ñuy ragal sax xëy na lu raw loolu am yéen lan ngeen jàpp ni mooy saafara yow surtout pour que ñu génn xëy na ci jafe-jafe booba ndax loola itam réew mi bari nañu mu yitteel. waa mooy ñu xam ne Sénégal soxla na ay doomam yépp soxla na ay doomam yépp mucc kon ku mel ni Ousmane Sonko ak li mu représenté ak ñi nga xam ne ñu ngi ci gën a am ci moom yaakaar loolu war naa mën a tax moom mu xam ne moomatul jëmm moomul boppam te am na loo xam ne bu ñu fa yeggee war naa taxaw xool ci nekk nekk ci ginnaawam préserver dundam préserver wérgu yaramam ndax loolu mën a doon njëriñu Sénégal ñi ko jege ñépp te mën a egg ci moom mën a wax ak moom loolu moom mooy premier combat bi nga xam ne moom la nit ñi war a mën a def parce que bala nga naan naam ne fa donc na préserver sa vie combat bu mu mën a mëne na ko mëne mais il faut que mu nekk ci situation yoo xam ne bu ëllëgee à tout moment dana mën a servir son pays mm-hmm. ndax réew mi ay doomam yépp la soxla moo tax lépp lu mu mën a def ñi ko jege surtout pour que euh, mu xoolaat euh, taxawaayam ci wàllu grève de la fin boobu euh, loolu yaakaar naa ne lu am solo lay doon parce que loolu du tere mu mën a continuer bëre bi nga xam ne moom lay bëre te itam euh, yàlla moom euh, ay mbiram sotti na ba pare euh, ku nekk war ngaa préserver sa wér-gu-yaram aar sa bopp aar ñi nga xam ne ñoom ñoo am ci yow yaakaar te loolu mu ngi jaar ci nga préserver sa wér-gu-yaram. Hmm. loolu looy dénk Ousmane Sonko la nguur gi ko teg loxo nag amoo loo leen di wax. nguur gi nguur gi moom li ñu leen di wax mooy am réew moom lu la ci waay mën a wax justice moom moo ko yore. Hmm. justice fu mu am yaakaar am te justice fu mu am déggoo dana mën a am hmm. justice nag moom bu ñàkkee rek ku nekk day daal di bëgg a wuute ay pexe yoo xam ne xëy na bokkul woon sax ca njëlbeen euh, la mu bëggoon a def waaye ñàkk pexe mën na koo yóbbu ci loolu moo tax ñu jàpp ne réew mi kenn moomu ko kuñ ko dénk itam dangaa war a wax ne danga man li ma war mooy fexe ba doomu Sénégal yi mën a déggoo mën a amante confiance mën a waxtaan li ñuy war a saafara ñu saafara ko te bañ koo saafara ci fitna. Hmm. loolu daal gouvernement bi fekk comprendre ko fitna bi du jeex du dellu ginnaaw te itam jafe-jafe yi ci biir réew mi day gën a yokk rek. da ngaa bokk ci ñu jàpp ne yoon amatul ci réew mi. non boo boo ne yoon amatul ci réew mi loolu dafay dafay doy waar ndax chaque jour bés bu nekk ñu ngi àtte ay nit te boo ne yoon amul rek dalatoo ci gouvernement bi ci ñëpp ñi nga xam ne ñooy àtte ngay ngay wax am na fi ay àtte yoo xam ne àtte nañ ko nit ñi wax ne neexul wax dëgg yàlla lii tegu na ci yoon am na fi àtte yoo xam ne àtte nañu ko xel yi ñaaw ndax même bu fekkoon ne tegu na ci yoon yoon wan ko jaarale ak nañ ko doxale ba egsi ca résultat ya hmm. day indi ñaaw njort ca mbir ma loolu nag bu ko defee doo mën a wax ne justice bi yëpp yëpp yëpp moo doxul moo baaxul waaye da ngay gis ay mbir yoo xam ne dalay lay wóor ne lii waroon nañ koo mën a ne neen hmm. su fekkee ne rek bëgg nañoo sàmm àq ak yelleefu doomu aadama bu nekk kon ndax seen xel dal na ci élection yi ñu jëm loolaay laaj bu mujj bi élection yi ñu jëm hmm. ah ginnaaw danañ ci dem day gouvernement bi na assumer ay responsabilités ñoom ñi nga xam ne ñoo koy organiser. Hmm. parce que li wóor mooy am na loo xam ne tàmbali na dalul xel tënk ñëpp ne kenn du génn ci mbedd mi kenn du manifesté kenn du défiler kenn du. def ay visite hmm. te beneen candidat bi mbubboo beneen mbubb mu may ko manifestation bu nekk mu mën koo def. ñi mu àndal mën a def ay rassemblement yu leen neex te dara lu leen ci fekk loolu lu dalul xel la te yaakaar naa ne gouvernement bi en particulier ministre de l'intérieur chargé des élections dana jël ay responsabilités am rappeler ñëpp à l'ordre pour que ñu mën a yemale candidats yi. Mm-hmm. jërëjëf Déthié Faye coordonnateur pôle non aligné ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi amoon mbégte lool nga doon sunu gan ci subak ak tey gi jërëjëf euh, jërë merci beaucoup maa ngi leen di sant leen gërëm